ci maire bi maire dafa ambassadeur utile may dem bitim réew di ñëw dafa am mission bu fay doxee bu bokkul ak loolu waaye moo doxee sama mission diine ba noppi nag doxal Tëngéej mooy wax ak doomu Tëngéej Tëngéej dafa nekk ak képp koo xam ne autorité la moo wax ak yow ba nga fexe lu tuut am bu fekkee da nga koy joxe Tëngéej bokk ci loolu la ñu amee ay partenaires ñu jaar ci madame le consul madame Bengelou de passage ñu koy remercier bu baax Mame Mbaye euh, depuis ñoom ay partenaires yoo xam ne Hidaya Fondation yàlla ko jaaral ci ñoom cette année ci vraiment jël nañu en charge à 250 personnes kenn ku nekk jox la 25 kilos de riz jox la 5 litres d'huile jox la 5 kilos sucre xeeb ko trop mais incha allah ñu ngi ñaan yàlla partenaires yi gën a bari ngir liggéey bi gën a yaatu waxuñu Rufisque waaye Rufisque et banlieue yëpp incha allah moo tax tey ñu daje fi vraiment ci mairie bi nga xam ne daanaka moom boo nee mairie nee nga tënkee. Euh, ñu sant bu baax daaw yéen ñi nga xam ne ñëw na daaw moo ko présidé leen ren tam moo ko présidé ñu ngi koy sant bu baax ci teewaay li ci des yemuñu foofu parce que chaque tabaski dinañu rey ay nag yu bari yoo xam ne dañ koy yi ñi nga xam ne yàlla def na amuñu xar wala seen loxo jotul seen gannaaw loolu yëpp ñu ngi jaar ci madame madame Benjamin euh, madame le consul maam Tukku Mbaye de passage ñu koy sant bu population yi nga xam ne ñu fi teew ñëpp nga xam ne ñun ñoo jël ñu di leen di jox man daaw wax ne maa ngi sant ñi may jox euh, parce que boo amoon boo yoree te gisoo koo jox di nga sonn kon ñi nga xam ne ñoo ñëw di jël si euh, maa ngi di sant bu baax comme ni ñu ko jibigéey waxee du caagee nag ñu ñàkk la ñu dimbali waaye dañuy ziarante ci weeru tedd bi moo tax ñu woote bés woote ko am nañ su suba samedi euh, fas nañu dem fas nañu dem ci prison bu fisc bi Euh, loolu yàlla nga ko paas euh, jaarale ci euh, madame Wali Diakhaté nga xam nekk ci mairie bi yàlla nga ko jaarale ci moom ñu mu tuuti bu bari dinañ leen yóbbu incha allahu seen ndogu ñoom demee a 11h bu gën a fa dem bu def remise bi incha allah.